amal fii tey di dimanche nekk 22 ci weeru avril muy bis boo xam ne si ne euh, kër gii di c trois es ñëpp xam ko ci kër la goo xam ne si dafay yëngatu ci lépp loo xam ne si askan wi yitte woo nañ ko soxla woo nañ ko euh, ci luñ mënul ñàkk ci seen wàllu àddina mu doon bis boo xam ne si ne dañ koo amal ngir jàppalante ko ak ñi nga xam ne si ne yëngu ci wàllu alxuraan muy amal loo xam ne siine ne néew na euh, lu ñu ko gis ndegam masis na koo gis ci euh, Sénégal wala ci àddina muy delloo siwaat mbindum alxuraan concours alxuraan joo xam ne si ne dañ koy bind mbind moo xam ne si dafay rafet lool te wér lool te mokk lool te dëppook ni nga xam ne si ne noonu la saxaabatul kiram indee woon alquran ba mu agsi ci noon muy rasmul osmaani ngir loolu te yooyu yëpp nga xam ne si dañ koy seet ci ñoo xam ne siine ci doomi réew mi lañ ñu di ko bind ca mbind ma nga xam ne si moom la ñu baaxoo woon xamoon ko ci bu njëkk muy cosaan ci réew mi di bind alquran te deesu ko xool di bind alquran ci wow di bind alquran ca ya nga xam ne si ne ñoo ca war a nekk yëpp dara du ca manqué mu doon bis boobu nag ki nga xam ne si ne mooy euh, euh, mooy société bi ci njiitul euh, kilifa gi nga xam ne si moo ko jiiti muy Alaaji Sëriñ Seck ñu amal ko tey jii muy concours boo xam ne si ne dafa jëm ci mbindum alquran mu doon nag ay kuréel goo xam mu doon kuréel mu doon liggéey boo xam ne si ne dañ koo séddale ay xeeti Euh, séddaleenti séddaliin yoo xam ne si ne yu wuute la kenn ku nekk ak ñenn ñu nekk kuréel bu nekk ñu am lu ñu sos ñu di ca ñu di ko taxawee am ñoo xam ne si ne ñoom la ñuy wax tax kiim ñu ngi leen ñu sos ko ñoom ñuy yëngu ci wàllu atte ginnaaw boo xam ne candidat yi bind nañu ba noppi ba jébbale seen mbind am ñoo xam ne si ne ñi ngi ñoom ñi ngi jëm ci wàllu communication ngir leeral lépp lu jëm ci liggéey bi am ñoo xam ne si ne ñi ngi yëngu ci wàllu organisation bi am ñoo xam ne si ne ñoom ñi ngi yëngu ci wàllu li ñuy wax ba muy surveillance di xool ñi nga xam ne si ne ñooy candidat yooyu di jongante ci wàllu mbindum alquran mi naka lañu ñu war war a binde eh, sart yi ñu leen tëralal ndax ñu ngi koy sàmmwanteeg moom kenn du xool kenn du gestu kenn du jëfandikoo portable wala benn jumtukaay buy wane ne yow mi kat mën nga cee delluwaat lu dul da ngay ñëw ñu jox la sa kayit jox la sa say xalima jox la say daa nga toog ci sa barab. amul dara loo xam ne si ne moo la fi fekk loo mën a dellu lu dul li nga xam ne si ne moom nga def ci sa bopp ci sam xel muy alxuraan ji nga mokkal mu nekk ci sab dënn noonu nga koy sotteewaat ci këyit gi ci anam yi nga xam ne si ne moom lañ ko tërale loolu nag ñun ñi nga xam ne si ne ñoo ngi wax man ak lenn ci sama mbokk yi nga xam ne si ne ñoom ngeen gis ci biir ñuy jaabante ci biir euh, mutasaabiqoon yi muy euh, ñi concours ñun ñoo yore wàllu surveillance boobu bokk ci sëriñ Mame Balla sëriñ Mbacke Sourang ak sëriñ Salihu Silla ñoom ñëpp ak sëriñ Abdou Seck ak seen mbokk mii di wax ak yéen muy mbokk Mortala Ndiaye ñun loolu mooy sunu liggéey ci bis bi mooy di contrôler ñi nga xam ne si ne ñooy concours di joŋante ndax ñi ngi koy ñi ngi sàmmanteeg anam yi ñu leen tëralal te concours bi war cee war koo tëddee ndax loolu ñi ngi sàmmanteek moom wala déet lool daal ci gàttal mooy li nga xam ne si ne moom lañ ciy taxawee noonu moo ci sunu liggéey euh, wasalaamualeykum wa rahmatullah أنت بنعمة ربك بمجنون